alhamdulillahi xatta yarda wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin almurtada wa ala alihi wa saxaabatihi dhawi tamkiini wa rida wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmin yalqa almuslimuuna alfawza wa rida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 gën a sell gën sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñi tibbee nuyoo bi ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu njàpp di fanweeri ya ayyuhaa allazina amanu ci téeréem bile tolloog juróom-benneeli aaya ci suratu maida ci ya ayyuhaa allazina amanu ida qumtumu ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi waxoon naa la démb faratay njàpp yi waxoon la sunna yi xataa waxoon naa la sax luy toj njàpp waxoon naa la sax tamit ngëneeli njàpp li nga xam ne njàpp làmboo na ko ñii jàpp ne njàpp taabud la mooy jaamu yàlla gu ñu yàlla sant te xamuñu illa ba ñii jàpp ne njàpp mu àllal la mooy jaamu yàlla gu ñu yàlla sant dañu xamee illaab li tax mu santuñu ko boo demee ca Muwatta bi imaamu Malik mbaa Naylul Awtaar boroom xam-xam yi wax ne taabud la dañuy wax ne njàpp daal li ko tax a jug suñ maam aadama mi nga xam ne moo ñu meññ ci saahir suñu borom da ko tere woon ne ko bul jege garab gi moom moom mu far laal garab ga ba mujj dog ca lekk ca léegi nag sama boroom ne ko xam na ci sa cër yi nga xam ne ñoo participer ci laal gi nga laal garab gi ak lekk ko bala nga ma jaamooti ci julli wala nga may jaamooti ci wër kaaba ga wala nga may jaamooti ci laal sama téere bi wala nga may jaamooti ci bëgg maa ñaan ci toroxlu fokk ci yooya da nga leen raxas bi ci jiitu sa loxo yii moom nga dugaloon ci biir garab gi di ko dagg kon nag raxas ko kem li tolloog la duggoon ca xob ya muy ca tikku njare ba ténk ya ba ca conc ya ñu ne lii moo sabab raxasub loxo ci sababu dagg meññant mooma ñaareel bi mu ne ko boo ca bàyyee ko na nga lu ko sabab mos gi nga mosoon garab googu ma tere woon la kon fokk nga raxasat bi sa gémmañ gile mi ngi xeeñ xet goo xam ne ma bu ñetteel bi na nga sorox lu ko waral meññent bi bi nga ko dogee fóonoon nga ko fóon googu nga fóon lu fóonu wut ci sa bakkan bi moo sabab ma sant la nga sorox ndi ko boole koog siiru li nga sorox war a génn waaye tamit boo ca bàyyee ko nanga nga raxas sa xar-xaram bile lu ko sabab sa bët yii nga xoolee woon garab gi ak meññant ma te xolluhuma la ko woon moo tax kon faw nga raxas sa xar-xaram bii nga xam ne moo hëmbaale say bët yóbbuwaale sukku bakkan ba yóbbuwaale ñaari ŋaam ya yóbbuwaale xóot-xóot yaag éhéen ya yóbbuwaale tamit xóot-xóotu maanaam mbati bët yaag la ca aju lépp bu ca ko masaal sa bopp bile ndax sa bopp bii moom nga tiimee woon garab gi nga xam ne maa leen waxoon ne wala taqraba hadihi sajarata nga dem a dem ba garab ga far tiim la ca xob ya kon nag li la tiim tiimuwut kon masaaxal sa bopp bii waaye tamit sa tànk yële boo ca bàyyee ko sa nopp yële nang ko koro koro lu ko waral bi ngay dagg doom ba sa nopp yaa ngi koy dégg ngir ak yëngatu xob ya yëngatu googu nopp yi dégg ko moo tax ma ne nang ko koro koro def ca ndox tànk yi moom maa la sant na ko raxas lu ko waral moom nga doxee woon jëm ci lu doxuwul bay dagg garab ga tànk yooyu nga doxee woon kon faw nga raxas ko ñu ne lii mooy kasaanal njàpp kon njàpp daal mu àllal la loolu mooy gis-gis yi lu gën a bari tabaarakallaahu ci borom xam-xam yeeg xatta yañ ko indi ca wàll woowa nga xam ne wax naa la ko ci waaye terewut boo demee ci yeneen xaaj ba ci naylul awtaar ñoom dañ na njàpp daal taabud la taabud nag buñ ko waxee ci usul mooy luñ la sant ne def ko waaye xamoo bañ xel la moo tax ñu sant la ko ndax yàlla dañ koy jaamu ci luñ xam di ko jaamu timit ci lum xamut moom daal bu ñu santaanee rek doonte xam nañ secret bi tax mu santaane dañ def waaye bu buñ xamut tamit dañ wax ne samiha naa wa tax naa rek kenn mënu ci dara kon njàppa ngóog tabaarakallaahu ak cosaan la ah, mu am sukkandiku waaye sëslaay ba moo tax yonantu yëpp daanañ jàpp dooree ca suñ maam aadama mi waaye timit njàpp mi ngi noonu li ko dooree ci yonentu yàlla aadama ba ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp jaamu yàlla la ñu daan jaamoo yàlla ci njàpp ci raxas seen cër yooyu ma tuddal la ko bàyyiwuma ca benn su ko defee nag kon njàppangoog bëri ngëneel lool bàyyi nga ne lam ko doon lim du jeex waxoon naa la ca dara démb waaye boo jëlee njàpp laab biti la lislaam tamit dafa bëgg ni nga sonnee ci laabag biti nga góorgóorlu ko ba laab ko laab biir laab ak biir gilee laabalal sa xol bi ci rëy bëgg àdduna bëgg daraja soxor iñaan ak lépp lu ci xaju moom la alquran ne wa siyaabaka fa tahir kooku yàlla bëgg na ko lool ah, waxaat tamit ne walakin yuridu li yutahirakum inna laa yuhibu tawabina wa yuhibu almutatahirin waxaat ne la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiihi ndax fiihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahhirin kon lislaam diiney laab la bëgg na ko lool ba yonentu bi ne at tahuru satrul iman waxaan ne miftaaxu salaati at tahuru waxaan ne laa yaqbalullahu salaata ahadikum ida ahdasa xata yatawaddaa xadis boobu mujj laa tuddal muttafaqu la xadis bi di miftaaxu salaati at tahuru imam ahmad tirmisiyu waaye tamit at tahur saturul iman muslima ko andi waaye laab googu ñaari xaaj la laabu saahir ak laabu baatin laabu baatin gi nag moo ëpp doole mooy fexe ba laabal sa bakkan bi waaye tamit fexe ba laabal sa xol bi fexe ba laabal ko ci mbooleem xeeti jàngoro yu rëy yi nga xam ne dafay toroxal nit yooyu yëpp jar na daw ndax tabaarakallaahu boo ko dawul rek mën nga ca doxe nga yàqule ca su ko defee kon nag yëpp nga jénne ko ci njort lu ñaaw foog naa foog naa te dara foogu wut ca yaakaar naa yaakaar naa ak boo demee boo demee te kenn demut yooyu yëpp nga laabal ko bakkan beeg xol bi ci añaan ak laabal bakkan beeg xol bi ci mbañeel laabal bakkan beeg xol bi tabaarakallaahu ci xor ci tappale ci soxor laabal bakkan beeg xol bi ci rëy laabal bakkan beeg xol bi ci ndéggital ak ci ngistal laabal bakkan beeg xol bi ci wépp melokaan wu yàlla gërëmut yëpp nga wan ko gannaaw kon daal yii la yëpp kooku mooy laabu baatin laabu zahir gi nag mooy cër yama la waxoon rek nga raxas ko ci sa njàpp lile yee si doon farata wax naa la ko yi ci nekkoon sunna tamit wax naa la ko bu ko defee nga defee ko ci njàpp kon loolu loo xam am solo la nañ ci bàyyi xel te di ko taxawee ko defee kon nag njàppangoog ak ngëneel yu rëy ya mu ëmb waaye tamit njàpp mile afa am ay sarta yu koy waral am sarta yu koy wéral buñ ne sarta yu koy waral ca biti njàpp la ne balaa laa njàpp war na fekk nga am xel ab dof njàpp waru ko wéru ko da ca tegu na fekk nga mësóoru ku mësooragul njàpp war na ko njàpp wér na ko waaye waru ko bi ci tegu na fekk nga nekk ci diine lislaam jébbalu ku jébbaluwut njàpp waru ko wéru ko ba ca tegu na fekk nga yëkkatiku ci bañ a yore deretu reegal ak gësin ku yore deretu reegal mbaa gësin jàpp waru la wéru la ba ca tegu mooy nga yëkkatiku ci am toj waa waaw ko na fekk na ku jàppoon ba pare kay toj lewut jàpp waratu ko bu njàppam nga waaye nag wér na ko jublu ca beesal juróom-ñaareel ba na fekk nga xam kartan ci mën na jëfandikoo ndox mu laab mile yii mooy surutul wujub yi nga xam ne bu dëppoo ci yow ci la lay njàppay door a war waaye yu koy wéral nag mooy matale mboolem cër yañ la raxasloo nga matale ko ci ragg ci ndox moo xam ne mu laab la ndox ma soppeekuwut ci xet soppeekuwut ci caf nga soppeekuwut tamit ci melokaan ko defee yooyu moo mooy bu njëkk ba waaye nga dañal lépp loo xam ne dafay tere joti ndox ma ci cër ya moo xam niinaay bala moo xam emaay bala wala lem lambaak takk lu takkuwut yëpp dindi ko ndax ndox ma mën a dugg tax yéen jigéen ñi emaayu bu ngeen bëggee jàpp da ngeen caaxaan rek ndox ma du dugg njàpp la yàqu yéen ñi takk seen bopp yi mel ni ay jagañu nag ci ay mees yëpp dindil boo ko njàppaalee du mën a wér ndax sax du tooy ñoom sax parewuñ pour mu tooy waaye tamit lépp luy dagg di firi jàpp la comme jàpp nga jàppal mu dëgër rek njàpp nag lu génn bokkut safaan ak koor la lu dugg bokkut nga fexe tamit tabaarakallaahu boo xamee ngàntal jàpp nga remplacé ko tiim tiim nag balaa mën a wér fay fekk waxtu wi ngay tiimal jot balaa mën a wér day fekk nga ñàkk ndox carrément mbaa nga am ndox te mënoo koo jëfandikoo ngi ngir ragal susub feebar dooleeku feebar ak yéex a wér boo ci tiimalee farata benn nga ci mën a julli lu la neex ci ay nawaafil mën nga ko caa jokk ndem jokkoo na ca fekk waxtu wi nga koy tiimalee tamit génn gut kon iile yëpp dañ ko cee war a bàyyi xel taxawee ko ca ci njàpp ya ak li nga xame na nii aju na ca kon njàpp ngoog léegi nag dama lay wax dara rek ci sangu sangu daal muy sangum janaba dafa xami ponk moom la alquran ne wa in kuntum junuban fatahharu yàlla ñu ko sant de bu ñu amee janaba laab leen laaj na yonantu bi moo toog saxaaba ya am ñëw laaj ko ne ko wa yasalunaka anil mahidi mu ne tontu ne qul huwa adan fa'tasilu nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna baqara aya deux vingt-deux kon dañ lay laaj régal moom mu ne ko ni sobe la bu dalee seen soxna yi da leen beru waxuma beroog na ko daan yahud yi defee wala nasaraan yi ñii dañoo xëppal ñii mànkil islaam ñëw nekk ci digg bi ci yahud yi ak nasaraan yi bu dee am nasaraan la danga gis koo xam ne soxnaam bu yoree régal dootul nangoo bokk ak moom benn lal du bokk ak moom benn néeg bu ko toggalee du lekk bu toggee du lekk du bokk ak moom benn lekkin wi yooyu yàlla ne xëpp na yow di ñoom ku ci sa soxna yor reegal seen yoon dañuy ànd ak moom jaxasoog moom sëy ak moom yàlla ñëw ne faxtasilu nisaa fil bi beru leen leen ci jaxasoo jaxasoog ànd waaye bu leen leen beru ci tëdd benn place bu leen leen beru ci lekk bu leen leen beru ci dëkkoo yi waaye beru loolu leen loon ci dë ci dëkkal leen kon waaye bu leen leen beru ci dëkkoo leen kon kenn du lislaam diinay diinoy wasati yàlla ci digg ba rek lay taxaw su ko defee nag moom sangum janaba mii juróomi yëfa koy waral boo yow jigéen gi may déglu sa direetu reegal bu daggee demal nga sangu yow di jigéen gi may déglu sa direetu gësin muy am doom bu daggee doonte njëkk ñaari weer yàlla demal nga sangu boo fi toog naa ñaari weer lay xaar yokk bàkkaar la sa deretu reegal ji fekkee ne jamono jam doon dagg dagg jot na te daggut yokkal ñetti fan yow mi yàgg gis bu daggee bu daggut yëpp demal nga sangu ji xam ne da feebar sa reegal mos ta passé fan nga ca daggut yokku ca yeneen ñetti fan muy fukk bu daggee bu daggut yëpp nga dem sangu ji su fekkee sa aada nag fukki fan la ak juróom xegg na ca daggut bul yokk dara buy fukki fan ak ñeent yokkal benn fan buy fukki fan ak ñett yokkal ñaar del yokk daal ci sartaab yokk ga du ko jéggiloo fukki fan ak juróom waaye su fekkee man ngaa yokk ñetti fan te desal ñetti fan dong ngay yokk bu sa doolee ci dara bu daggee bu daggoo dem sangu ji su fekkee boo yokkee ñetti fan doo desal dara boo ko ca yokkee rek fam xem ngay xem comme nañ ko xemalee woon fële ba mu desee waaye su fekkee boo yokkee ñetti fan xëppal fukki fan ak juróom moo xam benn fan moom moom moom nga am sa diggante ba ndax fukk ak ñeent mooy sa baax kon benn fan ngay yokk bu dee fukk ak ñaari fan dong ngay yokk bu dee fukk ak ñaar ñetti fan ngay yokk bu daggeeg bu daggut yëpp nga dem sangu ji buy juróom fan ñetti fan tamit ngay yokk bu daggeeg bu yëpp nga dem sangu ji lii mooy yow mu yore régal mooy sa àtte yow mu yore gësin su fekkee yaa ngi koy door a gis nag charia day wax ne daal d'accord comme yow daal mubtadi atu nga xamal ne daal lu mu yàgg-yàgg mënta passé fukki fan ak juróom bu ca yeggee mi nga ne daggugut demal nga sangu ji da ngaa feebar boo yoree jëkkër mu dikkal la da nga dem julli ji bu weeru koor fekkee la fi nga xoor kon réegal ñaar a koy gis ki koy door a gis ak ki ko yàgg gis ki koy door a gis lu mu yàgg-yàgg mënta passé fukki fan ak juróom ki ko yàgg gis tamit lu mu yàgg-yàgg mënta passé fukki fan ak juróom waaye duñ ko xàtte ci fukki fan ak juróom dañ koy xàtte ci baaxam baax ba lan la mu ne juróomi fan dagg naam daggut mu ne daggut ko yokku ci yeneen ñett muy juróom-ñett dagg naam ñu ne ko demal sangu ji da feebar baax ba lan la mu ne fukki fan ak juróom exact mooy sama baax ñu ne ko kon yow doo passé foofa dagg naam daggul mu ne daggul ñu ne ko demal sangu ji wala mu ne fan ak ñeent dagg naam daggul mu ne daggut ñu ne ko benn fan nga sañ a yokk wala mu ne fukki fan ak ñett ñu ne ko ñaari fan dong nga dara nga sañ a yokk kon lii mooy atteeb yow jigéen gi may déglu sa yore regal naa ni doom nag ba xewee ba léegi régal yi normal tut te xel nanguwu ko nooy naanee doom di bañ doom yow kay boo bañee am doom bul naan doom moo tax naankati doom yëpp seen régal yi dara normal tut ci kenn xamut seen régal na muy doxe waaye daal loo ci gis mu niru régal ci xet niru ko ci couleur rek daggal bahil bahil bahil bahil julli ya mën naa ñëw tey ñëw jëlal gannaaw suba ngay compter fan ya muy ñëw moo xam ba mu xegg ci sa baax bu daggut nga yokk ca ñetti fan ca fan ya muy ñëw bu daggee bu daggut yëpp nga dem sangu ji xam ne régal mënut passé loola. kon nag régal ak xàtte ba mu des gësin gësin mooy deretu njuréel yow mi am doom di ma déglu man yàgg mukk ba passé juróom fukki fan bi ñaari weer ci weeri weer su fekkee ne yegg na daggul demal nga sangu ji xamul yokk dara comme yegg na ca sangul daal yegg na daggul demal nga sangu ji xam ne da feebar. boo yoree jëkkër na la dikkal bu weeru koor jotee wooral de bu waxtu julli jotee jullil su fekkee dafa dog njëkk ñaari weer ya donte bis bi nga juddoo la demal nga sangu ji su ko defee commencé julli bi médecine avancé ba léegi dina deretu gësin ñaareel une semaine wala wala fukki fan bu ko amee rek ñaareel dagg su boobaa tamit nag demal nga sangu ji te commencé julli soo yoree borom kër bu la soxlaa ànd ak yow dara nekkul ci ndeem ànd ak nekkut lay lor ndax am na looy yëg ci sa bopp te nit ku ne moo gën a xam boppam balil insaanu ala nafsihi basira kon gësi na ngoog ñaari yi ku ko ci yore bu daggee sangul ku tuub dugg ci diina ji balaa sañ a julli dafa war a sangu sangu ba pare tuub man na tuub ba pare sangu man na waaye boo sangoon ba pare bëgg a tuub avant ngay tudd baatu seede bi dee duñ la sang duñ la jullee duñ la suul ci xarme jullit ñi la nekk sa xol comme waxagoo ko te lislaam ay texte la baat bi ci bool ni ngi tuddagoo ko kenn du la ci tax a tudd xalil ne lu dul nga nekk koo xam ne même boo sangu woon ba pare sax doo ko mën a tudd am muuma nga wala sa làmmiñ mënta yëkkati kooti kon nag comme mënoo waxati sas yi nga def moo ñuy tekki na yow yaa ngi ci biir waaye nag bu yàlla dogaloon nga tuub ba pare door a dem di sangu ji door a dee donte sangu mi pareegut wala sangoo goo sax dee dañ la sang dañ la jullee dañ la suul ci xarmelu julli ñi donte julli woo benn ba benn rakkaa sax mën ngaa dem aljana dal na benn sahabi bu ñuy tuddee usayrim moom lañ xam ci sahaba yi ku tuub julliwut dee dem aljana julliwut benn rakkaata aljana la jëm yonent too ko wax famille bi mu bokk mooy bani ashal ñi ca bokk ñëpp a xëy tuub benn fan ba mu def ko moom kenn mu ne man du ma tuub keroog xarib Uhud la tuub ci bëccëg bi gàddu jaaseem dem di xeex yi ñu ray ko sonn te julli wóorut joxut asaka takkut soxna ñëwee ko yonent bi moom de dee na tudd na baatu seede bi nag tey la tuub tey la dem ci xare ba tey la dee xajut màkka wóorut joxut asaka julliwut yonent bi ne innahu min ahlil janna ci waa aljanna la bokk kon kooka loolu la ko yàlla may xam naa yàlla may na ko lam mayoon maamam aadama suñ maam Adama kat yàllaa ko bind xëy rek dugal ko aljana te julliwut xóorut joxuwut asaka ajut màkka waaye gis nga ba mu ko defalee loola mu xëy rek dugg dugg foofa ah dugg aljana rek te yooyu yëpp defu ca dara fu mujj ah mu foonee aljana lu yomb la waaye keroog ba mu génnee sama boroom génnee ko ci aljanna ji ne ko tey bala nga fay bëggati da nga julli bay bëgga a dee da nga xoor bay bëgg a dee da nga aji màkk bay bëgga dee danga nga saraxe bay bëgga dee moo tax bu duggaatee dootul génnati de nit ki lu ko yomb mu foxee ko waaye lu la jafe nga mën koo nga koo fonk kon loolu dal Usayrim moo dal suñ maam Adama waaye bu duggaatee dootul génnati kon kooka am na chance te du baatu seede bi bis bisu tay bi yàlla dogal julli woo hóoroo joxe woo asaka demoo màkka dem ci xare ba ñi rey la yonent bi ne innahu min ahlil janna kon ku dugg ci diina ji dafa war a sangu comme sangum janaba ndax sobe la innamal na najasun sobe lañ kon foofu mu sangu bi ci tegu tamit képp koo xamee na nii dangaa yore janaba janaba nag ñaari xaaj la bu ci njëkk mooy mën yu mu génn saa yu mën yu génnee ci xanam ak wér ak ci xanam ak bànneex ak ci xanam ak baaxoo borom war naa sangu waaye bu bu bu mën yu génnee ci lu duur xanam ak wér mbaa mu génn ci lu duur xanam ak baaxoo mbaa mu génn ci lu duur xanam ak bànneex borom du sangu ku ñu tàgge sa mbokk nga tiit sa mën yu génn doo sangu ku ñu tuur ndox mu tàng tiit tàngoor wa jàpp la mën yu génn doo sangu ku ñu dóor ba mën yoom génn du sangu na raxas kanamam rek sansi tubayam ja te dem jàpp julli demeet koo xam ne tabaarakallaahu yooyu nekkul ci xanam ak wér nekkul ci xanam ak baax nekkul ci xanam ak bànneex benn waaye dafa ñëw fekk ibnu abbas di julli mu fekk fa ay taalibeem ne man de saa yu ma sawee sama mën yu génn ndax damaa war a sangu taalibe ibnu abbas yi ne ko dangay ngay sangu fekk ibnu abbas a ngi julli mu gaaw sëlmal ne yéen li ngeen tontu fu ngeen ko teg du ci alquran du ci sunu woo leen ma góor gi mu ñëw mu ne ko ndax lay génn mënuñu la mu ne ko waaw waaw li doom mën a sosoo mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax ba muy génn da nga caa yëg bànneex mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga raxas sa kanam doo sango moo tax kon maliki yu na yi loolu lañu jàpp imaam Malik nekk seen kilifa suxnu nag ibnu Qasum ak yëpp loolu mooy seen àtte loolu lañ gëm kon kooku mooy benn xaaj ba ci janaba mooy génn ak maniyu ci wér anam ak bànneex anam ak baaxoo beneen bi nag mu ci mën ci ci ci ci janaba mooy ñaari awra yu jonjoo moo xam benn ba borom dee na moo xam benn ba borom a ngay dund donte mën nañu génn naam génnut ñaari awra daal saa yuñ jonjooxee rek sangu mm, uh, janaba war na ca loolu la yonent bi jàngale ci hadis boo xam ne satu moo ko wax ni maa ko dégg ci yonent mu ne ñaari làkkuwaay yi saa yuñ jonjooxee rek sangu war na ca yonent bee ko wax juróom-benneel ba mooy ku génn àdduna di jullit sangu mii ñi sangoo janaba lañ lay sangee boobaa nuñ la koy defee moom daal nañ la yëkkati teg la fu kawe moo tax gaa yi di ko tabax ba mu tolloog ñaareel sa sa biir bi su ko defee tamit ñu jël lu xaw a diis teg ko ci sa biir bi mbaa ñi koy ratt di ko ci teg par nànk di ko bës nànk sobe yëpp génn doomu aadama ñàkk solo sobe yi newoon ci biir bi yëpp génn ba set wecc ñu jël raakool bi dindi yooyu yëpp ba pare bu paree nag ah nañ raxas loxo ya ñetti yoon ba mu set ñu dooree ca jumbax ba ba ca bët wóom ya waaye yow mi koy sang doonte jëkkëram nga wala ngay muy wala muy sa jabar wala muy sa baay wala muy sa doom sañoo gis aw ya dafa am lu ñuy muur su ko defee nga jël sa loxo yi dugal ko ci lu mel ni gant wala nga jël am morso bu tal takk ko ca morso ba di jooñ joog rag ga waaye du loxo bi directement kanam ak gannaaw ba lépp set wecci dara desut bu ca bàyyi dara nga jàppal ko jàppal benn benn waaye booy jàpp ba yegg ci galaxndiko bu ko galaxndikul de ak ndox ma mën naa duggaat muy génnaat da ngay jël lu mel ni wéteen fompee ko bëñ ya mu taxaw taxawaayu galaxndiku nga jël lu mel ni witten fompee ko bakkan ya mu taxaw taxawaayu soraxndiku boo fompee nag bu la neexee saxañ ko saxañaale bakkan ba su ko defee tamit boo demee nga raxas xar-xaram ba ba mu set wecc bu paree nga raxas loxo ya ba ca conc ya masaa bopp ba koro koro nopp ya tamit noona bul def ndox mi di ko dugal sa noppam ya de jëlal lu mel ni witten fompee ko nopp ya boo paree mën ngaa sax ñaare nopp ya su ko defee nag boo foofa nag nga bu la neexee raxas tànk ya mu jeex nga door a wëlbati néew bi gaa yi jàppal gannaaw bi nga raxasee bopp bi yépp ba mu tooy ba ca mbagg ya la ca mën a am nga door a nag wëlbati néew bi nag raxas genn wàll ak boo koy boo koy wëlbati jëlal dof tànkab ndeyjoor bi rek teg ko ca tànkab càmmooy ba wëlbati yomb nga raxas genn wàll ga ba mu wàcc waaye tamit tegaat tànkab càmmooy ba ca ndeyjoor ba wëlbati genn wàll ga raxas ko ba mu wàcc lépp tooy xepp boole ko set muy sangu mu njëkk mi nag nga door a indi sangu moo xam ne bu la neexee def ko si déem ah ah bu ko defee tamit wala nga bu doo def ca tamit defee si déem mën naa xëpp ko amul am saabu wala omo bi raxas ko mu set wecc bu ko defee tamit nag nga door a def ñetteelu dox mi nga xam ne da koy def parfum muy kaafuur ak yooya du commencé nag sang ga nii la sangee nit ku génn àdduna mook sangum janaba mi benn rek lañ ko dégg na mënumaa sang néew rek neel maa ragal dee rek wala maa ragal ku dee waaye ku mën a sang sangum janaba mën ngaa sang sangum niiw kon sangu maa ngoog ak lépp loo xam ne nii xaju na ca su ko defee nag kon sa juróom-benni sangu yi moo xam ci lislaam di sangu mu war sangum deret ju dog ci reegal mbaa ci gësin jigéen ñi yëkk ñoo ko jagoo sangum janaba ci ñaari xaaj ya góor ak jigéen a ko bokk mën yu mu génn ci xanam ak wi rek bànneex ak baaxoo wala ñaari awra yu jonjoo wala sangum ku tuub góor ak jigéen a ko bokk ak sangum ku dee góor ak jigéen a ko bokk yeneen sangaay yu mel ni bëri na waaye day wutee xam na ca yuy sunna yu mel ni jumaa xam na ca yuñ sop lu mel ni sangum it yooyu ak yeneen yu mel ni ñoom mi nga xaajowoo ci ni nga ko xéenee rek Eh, innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli mri'in ma su ko defee kon nag lii mooy juróom-ñaari sangu yi war juróom juróom-benni sangu yi war ci lislaam ma wax la ko ba mu leer sangu yuñ sunnaal yi nag ak yuñ sopp yi yu bari la lu mel ni sangum jumaa sunna la sangum harmal sunna la sangum ñaari eid yi ñi dañ ko dugal ci luñ sopp sangu dugg màkk dañ koo sopp sangu ku sangoon niiw di sangu xaat dañ koo sopp sangu ngir taxawaayu arafa ba dañ koo sopp yii la yëpp sangu la ci lislaam waaye sangu yu dafa wutee yii sunna la dañ ko sopp su ko defee nag sangu màngook ak la ca war waxoon naa la tabaarakallaahu njàpp laak ni ñu yàlla mayee mu ñuy laabal njàpp ak ni ñu yàlla mayee mu ñuy setal sangu janaba ni ñu yàlla mayee mu ñuy laabal ak ni ñu yàlla mayee mu ñuy setal ku dul jullit mën nga am set waaye doo am laab booy jullit nag dangay boole laab ak set est lislaam moo moo moo yàlla na nag gannaaw sangu yile bu yàlla dogalee ngeen am ngànt ci sangu sangum janaba wala ngeen xam ngànt ci njàpp te luy waral njàpp taxaw na mbaa luy waral sangum janaba taxaw na ñaar yooyu yëpp mën ngeen koo remplacer tiim moo tax mu ne wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algaayiti aw lamastumu nisaa fa lam tajidu maan fa tayammamu saidan tayiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu kon boo amee ngànt ci jëfandikoo ndox mi ngir ragal sosug feebar ak dolleeku feebar ak yéex a wér te luy waral sangu mi fi walla luy waral njàpp nekk fi wala nga xamul ndox carrément na nga tiim boo xamee janaba nga yéene yëkkati toj mu mag mooma boo yorul janaba nga jéeme nga yéem a yëkkati toj mu ndaw mi nekk ci yow dara warul ko dul maa yuridu laahu li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wala yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun loolu rek a tax yàlla defal ñu ko kon mënuñoo fay yàlla kon njàppa ngóog ak xatteya sangu janaba ngóog ak xatteya tiima ngóog mën a ñëw remplacer leen ñoom ñaar muy xéewal gu rëy guñ jëlee ci saydatuna Aïcha bi caqam bi saxaaba yi di ko ko foral ñu nekk ba waxtu julli fekk leen taxamuñ ndox yàlla yoonal tiim ci xeet wi ngir a xat-xatab Aysa bile moo tax saxaabi yu ba ne ko yéen a bëri barke yéen abu kër Aboubacar mosu la nekk ci xat-xat lu du ba yàlla balal la ci ab xatte rek waral jullit ñi moo tax kuy tiimati santal sayyidatuna Aysa ci barkeem ci lañu ñun jullit ñi xeetu yonantu bi amee tiim xam nga bu tiim amutoon dañ sonn te tiim kat ñun xeetu yonent bi dong ñoo ko xam waaye xeet ya ñu jiitu woon amoon nañ njàpp waaye amuñu woon tiim comme ni nga xamee ne ñun xeetu Sayyiduna Muhammad rek ñoo am julleeg jumaa xeet ya ñu jiitu amoon nañ julli waaye jumaa ca ñaar rakkaa suba ñaar rakkaa ngoon lañ amoon ñun rek ñoo xam suuf si lépp di jàkk ñeexal ñu waaye tool ak sa bureau foo julli baax na xeet ya ñu jiitu woon seen jàkk ya dong lañ sañ a julli waaye ñun xeet wi rek ñoo xam dem xare ji gañe xéeféer yi jël xalal lu màng ja sañ koo lekk séddoo ko loolu ñu rek ko am ñu ñu jiitoon sañuñ ko woon ñun rek ñoo xam nga sañaa génnee asaka mu ne la jox ko sa mbokk man yàlla ma fay ki nga ko sañ ca dox daal mooy sa baay ak sa yaay ak sa doom ji nga xam ne yaa war a gàddu ak dundam ngir masóor a gut waaye wala bu masóoree tamit dafa nekk ku mënul combat yaa ko war a mënal waaye tamit wala muy sa soxna waaye soxna sax mën naa jox moom jëkkëram asaka kon ñu dul ñii boo leen joxee yàlla fay la soo ko joxee sa mbokk nag nga xam ñaari yool yoolab asaka ja ak yoolab jokk bokk ga ñun rekk ñoo xam musiba dal suñ kaw ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ña ko jiitu woon xamuñ ko woon moo tax yàquba ba ko musiba ma dale mu ne waa asafa ala yusufa boo xamoon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon moom lay wax kon nag tiima ngoog remplacer njàpp secours la nag moo waral man da sori lim nekk secours a tax mënoo ca julli ñaari farata lim nekk secours a tax boo tiimalee waxtu bu waxtu waxasee jeex voilà bala tut crédit ba jeex na mënoo ca jokkooti genn jaamu yàlla guy xaajowoo laab du wirdo du jàng du laal kaamil du jàng alquran du wër kaaba ga du jullee néew waaye bu waxtu wa jeexagut nga tiimaloon farata yooyu yëpp mën ko caa jokk xatta boo tiimaloon sax yooyu yëpp mën ko caa jokk mu des nag boo tiimalee julleeg takkusaan ba pare te tiim sa ngànt ndax mën ngaa wirdo ah kay borom xam-xam yi ñaari wax ñii dañ ne mënoo wirdo ñii ne ah kay mën ngaa wirdo maam laa jëb laa gis lim gëm dafa ne mën nga caa jokk wirdo wax ndax ko mën nga caa jokk naafila man caa jokk wër kaaba ga man caa jokk téye kaamil ab alquran man caa jokk jàng alquran mu ne nag wirdo yëpp seen cosaan mooy jàng alquran kon boo tiimalee julleeg farata man nga caa jokk wirdo man nga caa jokk wasifa man nga caa jokk hadratul jumaa yàqu dara ndem waxtu wi nga ko doon tiimalee génn gu daal yooyu yëpp xattan na leen ba mu xattanee jàng alquran nga xattanaalee wirdo ndax kat wirdo yëpp si lañ ko saan mooy jàng alquran demal ci téere bu ñu tuddee euh, mu fi dul anaam euh, boo demee ci téere maam alaaji alaaji Abdoulaye Niass boobu da nga ko ca fekk kon nag yàlla na yàlla defal ñu tawfiix mañ taysiir boole ñu dimbalee may yee da daanee waxtaan wi ci yee suñ mbokki jigéen ñi nekk ci àll bi bëgg yàlla lool di topp waxtaan wi moo xam ca dukumaan moo xam ca tabaarakallaahu njombaato moo xam ne nekk RIP moo xam ne nekk Signy ñëpp topp ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm am na lu xew Saalum lool te ñu koy tuddee ñetti xomb ñetti xomb nag ñaar ya baax nañ waaye benn ba baaxut boo xomb la boo xam ne boo ko toppee mu mën laa dugal safara ñetti xomb daal wala ñetti caabi su fekkee ne mooy dañoo yëkkati am natt def ko ci dëkk bi ku bëgg a bokk ñëwal bind loo xam dugal ko ñu bind ko su demee ba mat juróom benn weer wala fukki weer wala lu juboo ñi tàjji ko kenn ku ne la nga nattoon ñi delloo la ko su ko defee nga mën a dem faji sa soxla boo bëggee gën a lal jënd lal boo bëggee tabax tabax soo bëggee dimbali sa jëkkër dimbali ko loolu de ñaari caabi yooyu de baax nañ caabi natt ga baax na caabi teggi ga baax na wala sax natt ga dañ ne woon kenn ku nekk nattal xam na nag looy yokk ci natt bi waaye yokk gi ñu yokk ñun ñëpp koy yokk ko dañ ko ku ci bëgg suñ biir ñu lebal la ab judde booy fay fay junne ñaar téeméer waaye junne ñaar téeméer boobu tamit ñun ñëpp koy teg ñaar téeméer yooya day delluwaat nekk taatu kees gi buñ koy séddoo ñu ñëpp a cay xem nekku riba liggéey rek la dafa dund dafa dugg ci buntab xiraat dañ laa joxe tànk nga dem liggéeyi bénéfice ba mu xam loo ca joxe boo ko dugalee ca buntu boobu tamit ba tey dara nekku ca waaye ñetteelu caabi gi daal moo xaraam mooy yow gannaaw bi nga tegee li nga natt ba pare ku ca soxla ne damaa bëgg ku ma lebal nga lebal ko boo ko lebalee ab junne waaye daal weer wu dee mu jox la téeméer feeg bu muy mën a fayee junne ba bu mën naa joxe ñaari yoon ñaar téeméer mën naa joxe ñetti yoon mën naa joxe ñeenti yoon ba juróom benn waaye bu mu bis bu fayee téeméer ba daal junne ba daal bor ba door a teggi yow la nga njëkkoon a lekk ca téeméer yooyu foo ko teg riba bu bon la boo ko lebalee ñaari junne weer wu dee mu joxe ñaari téeméer fekk bu ba muy mën a fayee ñaari junne ba su ko defee yow sonnoon ngaa lekk ñaari yoon ñaari téeméer mbaa ñett mbaa ñeent foo ko teg yow kon ñaari yaa ngi leble woon ñaari junne te yow kat yaa ngi fayeeku ñaari junne juróom-benn téeméer te lépp ci yow la dellu loolu xaraam na ba jéggi dayoo ñetteeli caabi jooju na ngeen ko baxi ku ko ci topp muy caabi ju lay dugal safara riba bu bon la waaye caabi bokk nag kenn ku nekk la nga toom buñ paree moom lañ lay teggil wala loo ca teg ñëpp a ko cay teg te buñ koy teggi xaat ñun ñëpp koy xamale xaat ci kenn ku nekk kenn la nga joxe woon wala dara nekkul ci ñaari caabi yu baax a baax la dafa dugg ci caabi yi wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan waaye ñetteelu caabi ja moo bon mooy gannaaw bi ma teggee ba moom sama xaalis ku bokkutoon mbaa mu bokk bëgg ma lebal ko mën naa ko cee lebal waaye su ma la lebalee junne weer wu dee téeméer nga may jox de fekk ba may mën a fayee junne ba wala weer wu dee su ma lebalee ñaari junne ñaar téeméer nga may jox de fekk ngay mën a fayee ñaari junne ya waaye la ma la doon la musal nag li li jaadu woon kay lebal ma kay ñaari junne nu ma mu ma lay fay su ma dugalee ñaar téeméer nga ne kon neuf mille moo su ma dugalee ñeenti téeméer nga ne huit mille a des waaye daal yow daal feek mënaguma indi kaas li nga ma joxoon rek ah, ba tey bor ba ma nga fa waaye waaye xam ngeen ne loolu xaraam na ba jéggi dayoo seen ñetti caabi yooyu tasaaroo lool ci saalum gi bàyyi leen ko lu xaraama xaraam la bu ko ci topp ba dee tuubuloo ko bu la suñ borom jéggalul nga dem safara ndax dugg na ci buntab riba te yàlla nee na inna lazina yaakuluuna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatahu seytaanu min al masi te loolu lu xaraam la seeti ko ci suratul baqara mu ne képp kuy lekk riba booy dekk ci sa biir bàmmeel dangay mel ni ab dof buy daanu saddum jinne waaye loolu mën nga ci dégg ne bépp économique boo tabax ci riba dafay daanu bu demee ba ca kaw rek màbbu borom doo am dara loolu tey moo daanee àdduna bi yépp lekk riba gee tax koom-koom bu dem rek daanu nit ñi nekk ay milliardaire taxam mënuñ dara alal bi dul jeex yaa ngi ko am ci siifur rek waaye tus nga mënut li nga yor ci wërsëg sa baay ak sa maam ak say mbokk ya deewoon yëpp buñ ko boole yaa leen ëppale waaye tus nga mënta def loolu loolu lu muy jëriñ kon loolu lépp boo ko seetee cosaan la riba rek moo ko waral kon nag in uridu ila al islaaha mastataqtu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkaltu ne unni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kar